bu ñu waxee sax dañuy tele lool waaye ñoo ngi jégg lu baax ci gàttaay bi di ñaan nga yàgg fi te wér ba Abdou Samad loo dund doyut yàlla nga fi yàgg lool ñun ñi de wax dëgg fa yàlla yaa ñu dimbali defal ñu liñ ñu defal barki maam Seera Fall yaa ñu defar ñun ñi de defal nga ñu defal loo xam ne nii suñ toogee kaw dañuy siggil torop dañuy jàpp teeñu te du suñ jëmm yi du ci dara ñun yow lañ am yow rek lañ xam Mbacke Balla guddal fan ñu ngi ñu jégalu ci kàddu yi ñu ñaan nga yàgg fi lool yàgg ñoo jiite ñu yàgg topp sa gannaaw jërëjëf ñoo ngi tuubaat. te yàlla nee na ñoom it ñu ngi leen yóbbante a nuyoo bu baax di leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax di yëkkati kàddu yu gàtt di feddale rek kàddu yu ñu yëkkati muy kàddu yu cant ak ñaan yu ànd xol bu sedd guy di sant yàlla bu baax. biñ fi teewee daaw te ñaanoon ko ne yàlla nañ ko fekkee ndegen déwén kon ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu may ñu fekke ko di ko ñaanaat tam yàlla nañ ko fekkewaat ndegen déwén barke Seexul Xadim kenn bañ a manqué ñu amoon yéene teew te yàlla dogal mënuñu woon teew déwéne ñëpp yàlla nañ teew barke Seexul Xadim ñu ngi yóbbante ay nuyoo mboolem mbokki talib yëpp ku mel ne Ibrahima juuf ak mboole mbokk taalibe yëpp nañ xam ne daanañ teew te yàlla dogal teewuñu nee na xam ne seen yéene seen xol ak seen jëf lépp teew na fi mi ngi leen yóbbante ay nu bu baax di leen sant bu baax ci lu weesu lépp di ñaan yàlla ci barke sëñ Touba jëf ji ñu jëf yëpp yàlla nañu ko yàlla nangul barke Cheikh Modou Fadel bu ko ma nangoo ba noppi yàlla na ko fëlandi làq ko fa yàq agut def ko yiwul àdduna ak yiwul alaxira barke Seexul Xadim nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax ndax xam na ne ni ko Saali waxee rek moom it ñu ngi koy nuyu baax jàmbaar la ni ko waxee rek rek ni xam ne mooy addee ji kenn ku ne si yéen yéenam ëpp na loolu jëf ji nag mën na sëkk nee na xam na seen yéene moo rëy rek kon mi ngi ñaan yàlla ci barke sëñ Fallou bu fayoo jëf jooju ba noppi yéene ju jooju yàlla ne ko yàlla fayalee barke Cheikh Amadou Fadal di ñaan tamit li des suñu kanam ànd ak yéene jure rëy jooju yàlla sunu borom mi ngi ko ñaan ci barke sëñ Fallou mu kàttan nañ leen doon leen wér doon leen jàmm ak xéewal yu bëree bëri ba lépp lu ngeen ci yéene yàlla sunu borom kàttan na leen ba nu ngeen defee ko nu ko begee ba defee ko sax nu kawe seen jot barke sëñ Tuubaa mi ngi sant ñëpp mi ngi sant bu baax jëwriñ sa Ousseynou borom pas-pas la baax xam nañ taxawaay man sëkk nee na xam na ne mën na njit bépp mën na njit waa yéen itam man ngeen ko ay topp baax ndax waxtu wu ne mi ngi seere seen taxawaay ak seen pas-pas mi ngi ñaan ci barke sëñ Fallou sunu borom yàggal ànd bi lool kàttan leen dool leen wér dool leen xéewal ba lépp lu ngeen si yéene yàlla defal leen kawe seen jar barke Cheikh Amadou Fadal nee mi ngi sant soxna yu baax di leen gërëm baax di leen ñaan yàlla sàmm leen yàlla dool leen jàmm barke leen yokk njaboot gi dafa leen tawfeex te ngeen fekk lépp barke Cheikh Khadim ni saale Saliou waxee rek ne ñëpp yokk nañ bu ñu fi jógee daaw mu ne ren ñëpp yokku nañ jaan nañ ñaan nañ ci barke sëñ Fallou nañ fi teewaat na gën déwén ñëpp gën a yokk kenn ku ne noo yokke woon yàlla gën a yokk barke sëñ Touba ànd ak mucc ak wér ak xéewal yu bari barke sëñ tuba barke Seexul Xadim nee na bëgg na bu baax nee na xolam sedd na baax ñu ngi yóbbante ay nu ci ñëpp ak ay cant ak mboolem mbokk taalibe bi mag ak ndaw góor ak jigéen jërë ngeen jëf san nañ baax baax gërëm nañ baax jasaakumullaahu xayran ala leen loxo di yeesalaat sunu taalibe ak sunu njëbal sa jëm di la siyaare sa bis bu bi nga xam ne amuñu lu dul moom waaye di lay indil nuyoo jëwriñ sëriñ góor a ñaan nga xam ne sa jàmbaar jooju nekk Cees yàlla def mu nekk ci bopp liggéey bi mu xawoon yaram wi xaw a sutante ñu waxoon ne nañ fi ñëw kon nuñ ko daan defee indi yébbal addiya yi nga xam mooy daayira daaru salaam bi nga xam ne moo la nekkal Thiès te yàlla def mu nekk ci bopp bi sëñ Ousseynou Seck mii di suñu rakk léegi mu nekk ci ñëw bokk ci délégation bi sëñ Abdou Jaxate waaye Baye Bàcc Ngom bi nga xam ne sunu kilifa la euh, moom ànd ci jataay bi ñu ànd koog Thiès Média ak RTT ba nga xam ne euh, sa tele bopp la ndax euh, bu sa taalibe di ci nab nabi di ci yëngu sunu sag la suñu kër sëriñ suñu kër wasi la bu yu mel nii amee ñu feeñal fa suñu yéene euh, di la ko jë indil bu baax a baax a baax ci liggéeyu daayira boobu nga xam ne mooy Touba Daaru Salaam ci njëtal seen góor a ñaan ñoom ñëpp ñu dajal seen addiya ñëw jébbal la ko ci liggéey ba nga xam ne ñoo ko def ci bisub màggal gi siyaaree la ko di sàkkuwaat ñaan bu baax nga ñaanal ñu suñu borom yokk ñu bu baax a baax. jëwriñ sëñ Mourou Seck ak mboolem ñu mu àndal liggéey bi sëñ Ousseynou sëñ Ndiakhate Seck Samba mi seen jëwriñ mboolem ñu bokkal liggéey bi mi ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm bu baax di yóbbante ay nuyoo ci sëñ Gora Ñaan ak mboolem ñu bokkal daar bi yëpp mag ak ndaw. góor ak jigéen ñëpp mu ngi leen yóbbu nday nuyoo jaarale ko sëñ mu sekk mi fi teew te xam na tam sëñ góora ak mboolem ñi mu bokk liggéey bi ñi nga xam ne yàlla dogal teew ñu xam nañ seen yéene ak seen xol ak seen jëf lépp teew na xëy na yàlla moo ko dogale noonu waaye xam nañ ne yéene ji teew na te ñi teew rek teewaale na ñëpp matal nañ ko sëkk tam indaal nañ jëf fekk fi yéene yi ak pas-pas bi kon mi ngi ñaan yàlla ci barke sëñ Tuba yàlla yàlla nangu leen jëf jooju barke Tuba ak li weesu lépp tam yàlla suñu borom nangul leen ko barke Seex Ahmadul Fadal dafa leen ko yiw àdduna ak yiwu alaxira barke Seexul Xadim nee na mi ngi leen sant bu baax lu taxawaay bi ak pas-pas bi ak yéene jumandal ndax wax dëgg yàlla pas-pas rek ak yéene ju moo waral lii ndax bi joxe ndigal ne waa Thiès taalibe yi fa ne na ngeen xamante àndandoo yogoo yàggul dara waaye bi ndigal la jotee teen ko daal def seen yitte def seen lépp ba mel ni mel nii kon mi ngi koy rafet lu baax di leen ci gërëm baax tam di leen ñaan yàlla ci barke Sëñ Fallu yàlla suñu borom gën leen taxaw yàlla doon leen wér doon leen jàmm ak xewel yu bari ba lépp lu ngeen ci yéene yàlla kattan na leen ko ba ngeen defee ko ni ngeen ko bëggee lépp nag ànd ak ngërëmu sëriñ bi am nañ ci mbégte lool ñu ngi sant yàlla baax bu ñu fi teewe daaw ñaanal nañ ko yàlla nañ fi teew ren kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nga ko fekkaat nga bark barke Seydou Khadim ni ko sëñ Modou waxee rek mi ngi ne ñaanal baax ni mu ko waxee ne biñ fi teewee daaw am nañ façon liñ fi ñaanoon yàlla sunu borom ci baaxam ci barke sëñ Fallou moom moo matal loolu kon mi ngi koy ñaanaat barke Seydou Modou Fadal liñ fi fasaare tam bala ñoo ñëwaat déwén lépp saafaraw ñëpp am nañ ko bëggee barke sëñ Tuba ñu ngi ñaan tamit daayira bi yàlla sunu borom gën leen doole kàttan yokku tawféexi yokk xewali ba lépp lu ngeen ci yéene ngeen def ko ne ngeen ko bëggee barke Seexul Xadim ni mu ko waxee ni ko waxee tam ci jumtukaay xarale yi ñu ngeen jëfandikoo mu ngeen ci ñaan yàlla barke sëñ Fallou yàlla dafa leen ci tawféex mu yokk lool yaatu lool tabarkel nu ju am dal fu tele ba àgg fi muy fi muy fu tele mën a àgg yàlla na yàlla àgg leen fa te ngeen ànd ko mboolem ñu leen ko àndal ni ñu ko waxee mel ne na ñaar lañ am na yeneen mbokk taali bi ñëw ànd ak yéen liggéey bi ñoom tamit ñu leen ñaar yàlla ñoo gën ñëw fii yàlla buñ ko rëccu yàlla buñ ko rëccu mukk yàlla doon seen jiglaay mu jural leen yokkute ci fànn yëpp ba an mu jot rek bu ngeen di ñëw ngeen àndante ak ñoom barke sëñ Tuubaa nee na sant na leen baax këram na leen baax mi ngi feddali kóllëre gi baax di feddali taalib bi baax di ñaan yàlla ci barke sëñ Tuubaa mu teel ñu ko baax ñu ko baax ba yóbbu ko ni ko suñ bëggee amee noonu barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf ñu ngi yóbbante ay nuyu suñ ngóora suñ ngóora ñaan ak mboolem waa bi ak mboole mbokk Cees yi ak mboole mbokk dëkkandoo yi ba wax dëgg yàlla ban fi ñëwee nee na sonn nga ci lool ak mbokk dëkkandoo yi ak mbokk taalibe yi ngeen nekkal kon ñun ñëpp mi ngi leen yóbbante ay nuyoo ñu yóbbante ay ñaan ci barke Sëñ Tuubaa lépp lu ay xewal ak i tawféex ci bis bi ci guddi gi yàlla ko jëriñ ñun ñëpp yàlla na ko yàlla ak mbokk julli yëpp ak mbokk taalibe yëpp barke Seelu Xadim jërë ngeen jëf jazaakumullaahu xayran ginnaaw bu ñu nuyoo bu ñu leen nuyoo sant leen bu baax a baax di ñaan yàlla mu guddal suñuy fan wéral suñu cër doole suñuy xewul baax a baax yàlla itam may ñu ñu fekk ay at yu bare bare bare taxawaayu daayira moom ñu mu ko gisee mooy taxawaay bu rafet rek taxawaay bu dëgër di sant jiwriñu daayira yëpp yëpp yëpp ci ki ci jiitu ba ci ba ki ci ki ci mujj Kazu Rajab moom bu xasee ñëw wax dëgg yàlla kenn dootul am jàmm lu dul dafa paase ñu jàngat ko ba xam ne am nañ ci am nañ ci réussite taalibe yëpp a commencé par jëwriñu daayira yëpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp dañuy mobiliser wu ànd ak seen i mbooloo maanaam ànd ak seen i seen i pour lu réussiral euh, pour lu réussiral euh, kazu rajab bi parce que boo xoolee bu bu bu weer wi wala avant sax weer wi di teeroo te mu te mu waxtaan yëpp te mu daayira yëpp lu jëm ci kazu rajab bi lay doon noonu lañ koy def noonu lañ koy def ba bañ ne bañ ne suba ba bis mi nii tay nii waaw daanaka ji bépp jéego boo xam ne bépp jéego boo xam ne nit yëkkati na ko wala bépp kàddu boo xam ne nit wax na ko pour lu réussiral bis bi rek la parce que ñun wax dëgg yàlla bis bi dafa bokk dafa kawe ci ñun parce que yàlla dafa dogal ñu jébbalu waa kër sëñ Fallou te ku képp wax waa kër sëñ waa kër sëñ di nga wax maagalu Kazu Rajab moo tax daanaka bu xasee ñëw moom dinañ ci def luñu man dinañ ci def luñu mënul xanaa di ñaan yàlla may ñu rek ñu fekk ay at ci passé rek ci buñ rek na na gàcceel bi nga xam ne dafay dafay passé waaw waaw bon coordination daayira yi li ko yombal mooy comme daayira bu nekk am na ku nekk ca bopp ba boo mënta wax ak ñëpp it di nga mën a wax ca bopp ba léegi nag boo waxee ba ca bopp ba ca bopp ba kooku mooy rogalaatal affaire bi membre yi ci war a jot yëpp jot ci fi mu nekk ni par exemple man su ma wax soxlaa nangam ci benn ci benn daayira jëwriñ ji rek laay wax yor nañ ay filiation yor nañ ay coordonnées am amante nañ ay ay information yu bari bari léegi moom ngay waxal directement bu ko defee moom mu wax ak léegi après exécution bi daal di commencé waaw. waaw waaw voilà laaj nga ma question question bu ma neex parce que taxawaay bi ñu war a am mooy taxawaay bu mooy taxawaay bu dëgër rek taxawaay bi ñu war am mooy taxawaay bu dëgër parce que li ko waral mooy sëñ Abdou Samad da di da di jëwriñ joo xam ne da di sëriñ boo xam ne wax dëgg yàlla ko ànd ak moom te xool ci moom war ngaa mën a taxaw taxawaay bu dëggër war ngaa mën a góorgóorlu parce que sëriñ bu mot sëriñ la sëriñ mot sëriñ nag boo ko amee bu fekkee taxawaay dafa am sa diggante ak moom taxawaay bu dëgër dëgër la war a doon taxawaay boo xam ne kenn du ko kenn du ko lam-lamee parce que wax dëgg yàlla euh, lépp lu mu warloo suñu diggante moom mi ngi koy def bépp taxawaay boo xam ne moo war sëriñ ci taalibeem sëñ sama romb na sax foofu moo tax ñun dañuy soññee mbokku taaliba yëpp di ko commencé nag suñu bopp ñu gën a yeesal pas-pas yi gën a gën a dëgëral laxasaay yi gën a gën a dox jëm ci waar wi te xam ne lépp luñ ci def su bopp lañ ko defal te itam nag loolu moo ñu war parce que sëñ bi ñëwul du ñu propagande ñu ñoo ko fekk fii ci daaraam ji ñu ñëw ne ko aslamtu nafsi ñu jox ko suñu bopp kon lépp loo xam ne taxawaay bu dëgër la bu ñu war a def dañ ko war a def waruñu ci am sax lu ñuy desal waaw waaw bon bës bi ni ñu koy wàggalee mooy xam naa ne ku wax murit moom di nga wax ay bernde café gi moom macha allah bernde yi yeneen yëpp macha allah loolu itam xam naa dara du ci manqué boo fi yàggee léegi loolu yëpp dina am laata loolu itam ci suba wàcc na ay kaamil alxuraan loolu sax jaadaan moo jiitu parce que lool moom lépp lu mu mën a doon ci àddina en tant que ay jullit loolu moo war a jiitu xam naa bu bu fi bu la fi guddee fekkee bu la guddi fekkee itam waxtaan yi di nga ko di nga ko dégg njàngum xasida yi itam di nga ko dégg loolu na xam naa boo ko génnee ci ma ci màggal du des lu bari jam <laughs> jërëjëf jàmm xewal merci merci xanaa di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi xalifatul haam di tarixal muridiya sëñ mu Muntaxa di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko ñaanal xalifa Baye Fall sax Moodu Mbend am di am di Moodu Mbend Fall yàlla sa borom bi sàmmal ñu ko te aaral ñu ko léeg-léeg yi mu amal liggéeyal maamam ji defe ko ni mu ko bëgg ànd ko julli ak taalibe yëpp waaye di nuyu sunu bunt ci kër sëriñ tuwa kër Serigne Mouhamadou Fadal di sëñ Abdou Samad di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko jox wàccuwaayam di leen nuyu yéen ñi nga xam ne it yéen ñu fekk si fii tey di leen ñaanal yàlla seen média bi yàlla na yàlla yokk ko zahir ak baatin waaw ni ñu koy soññee rek comme ni mu ko waxee rek ci soññ suñu bopp. Euh, bis bi màggal gi ku tudd Kazu Rajab nga xam ne mooy al Isra wal Mihraj sa xel dem ci Seex Mamadul Faadal mooy borom Kazu Rajab sëñ Mohamadul Faadal nag moom it ku ko xam xam ko ci lislaam xam ko ci taxawaayu yoonu murit kon bisam buñ ci soññee dañ ci sonne sa jëwriñ wax na ko sànq mooy la ca jiitu mooy njàngum alquran nga xam ne sëñ Tuubaa lépp lu mu am ci alxuraan la ko amee ci yonent bi sallallahu sallam kon loolu moo ci jiitu te moom lañ njëkkee lan lañ ca toogee nag mooy soññu taalibe yëpp ñu màggal ko te gën koo fonk muy ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi waaw loolu daal mën naa koo soññee ci bis boobu ko defee nga xam ne loolu rek mooy li ëpp solo ci bis bi njàngum alxuraan ak julli ci yonent bi sallallahu sallam ak màggal bis bi jàpp ko nga xam ne ci la suñ defaru àdduna nekk ak ju laaj nga jox nga pose nga question yi bu am solo mooy fi jamono toll nga xam ne liy fëkkaate dafa bari rawatina ndaw ñi wax ne mag ñi moom fëkk leen wees na waaye ndaw ñi nga xam ne lu xumb lu lañu foog na loola la te fekk du loola liñ leen di soñ mooy ñu gën a dëgëral seenu bi ndax sëriñ bi li mat wax yëpp wax na ko li mat jëf jëf na ko wax nañu dégg bind na bàyyi fi bàyyi ñu fi ay jëwriñ yu mat jëwriñ ñu war di déglu seen i ndigal di bàyyi seen i tere kooko ci def nag danga tegu ci yoon wa nga xamante ne bi ca nga war a tegu waa leneen liñ lay yóbbu nag leneen loolo moom leneen la rek waaye sëriñ bi moom li mu wane leer na nañ te mag ñi ci lañ ñu tënk ñu fas yéen cee tënku di ci woo ndaw ñëpp ñu gën cee góorgóorlu waaw waaw xanaa di leen santaat bu baax rek di leen ñaanal yàlla comme ni ma ko waxee woon ci départ bi yàlla sàmm leen taaru leen euh, màggal gi ngeen yëg ngeen yokk ba yëg ne yokk ngeen ci yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal bég nañ lool salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu walla euh, ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu euh, président daayira yi nga xam ne ñu ngi fii yëpp ci liggéey bi ah waa waañ wi moom ni mu demee ak kër sëñ bi mooy biñ xëyee suba ba ñëw ci waañ wi yaakaar naa président daayira yëpp ñi ngi ci biir waañ wi ci liggéey bi ah ñu waar jublu ci wàllu añ yi eh, jublu ci li nga xam ne ti mooy reer yi ah, ki nga xam ne ti mooy sëñ Mbaye Seck muy waa Mbour yi yaakaar naa ñu ngi nii eh, muy président fédération bi moo jiitee composé dayre yëpp man nag Ousmane Ndoye may président dayretu salaam bi nekk fii ci Touba ah, waañ wi daal loolu lañ ci bernde yëpp daal eh, waajal nañ ko taal nañ añ Euh, fas ke yéene berndeel gan yi ci biir kër gi. liggéey bi moom ni mu demee mooy bu màggal jubsee yaakaar naa fépp la dayra nekk muy dayratu salaam liggéey bi li ko waral it mooy euh, président dayra yi bu yàlla def na ñun ñoo nekk Touba waaye président dayra yëpp bu ñëwee màggal dañuy jël seenu ñàq ñëw indi ko ci dayra bi nga xam ne moom moo nekk Touba bu ko defee ñu boole ko def ko ci biir kër sëñ bi loolu mooy wàccaay bi nga xam ne dañ koy def màggal. mooy Kazu Rajab bu jubsee fu waay mën a nekk di dayre yaa ngi fay liggéeyal Serigne Abdou Samane Mbacké ngir bisu Serigne Fallou bi waaye bu ñu demee ba jublum jub màggal gi nag bañ ne dañuy jébbale dayre bi dayre yëpp dañuy jël seenu ñàq ñëw dajale ko ñëw indi ko ñu dem jëbbal ko sëñ bi sëñ bi yëkkatiwaat ñàq woowu jox ñu ko ci la ñuy defee màggal gi kon ñu xam ne màggal gi li ñu koy defee taalibe yi ñoom ñoo ci dajale seen alal di ko ci def waaw li may soññee njëkk mooy ci dayre bi ñu xam ne ab taalibi moom ba mu jébbaloo ne alamtu nafsi jébbal naa la sama bopp ak àddina alaxira amatoo dara lépp loo am sëñ bee ko moom kon bu bisu sëñ bi taxawee lépp lu waaye jàpp dang ko war a bàyyi ñëw taxaw ci bisu sëñ bi waxuma la liggéey bi mais saw ñaq amatoo looy denc kon yaakaar naa lépp loo am waxumaa nag dayra ya nga xam nañ moom lañ tëral nga bokk ca kenn warula caa man kon li ñuy ñi rek mooy ndaw ñi ñu xam ne lii ñu def kër sëñ bi kat xeeb nañ ko ndax kër sëriñ boo fi gis ci màggalu kas rajab ak nu mën a mel taalibe yaa ko def bu buñ sañoon ñu nit yaakaar naa këru dañ naan kër sëriñ Abdou Samane Mbacke màggal ga la fay daje ci mbooloo ak i bernde moo fi ëpp kon nag nañ xam ne taalibe lay aw sagam mooy kër sëriñam lu waay jàpp sa temps ak sa alal waru koo fekkee ndax ba nga jébbaloo sa bopp ne àddina ak alaxira yaakaar naa ca nga war a amutoo looy denc comme sëñ bi nag damay wax ci sëriñ Abdou Samane Mbacke tuuti rek ñun yàlla dañoo séddoo sëriñ boo xam ne ku ko am dama naan dañ ko war a téye suñ fukki loxo ak juróom ndax ñun yàgg nañ ci kër gi ba kër gi sosoo ba léegi ñu ngi ci màggal gi sosoo ñi ko sos ci lañ bokk ba léegi ñu ngi ci ci ñaar fukk lañ tàmbali woon di ñaar fukki junni ba agsi fii tey kon ñu xam ne sëriñ boo xam ne du la jox ma du la laaj te boo amee ay yitteem mu dagg ay yitteem ñëw say yitte yaakaar naa bu ay yitteem taxawee nañ ko war a xam ab sëriñ nag boo ko jegee doo ko xam ndax xëy na woyof ga ku mel ni sëriñ Abdou Samad naga ci raw nga xam ne du la woo du la sant te loo nekk wala du la dal balaa am jàmm nga ji nga jóge ca te loo nekk mu jël alalam si boo yéexee mu def ko ci te du la wax na la defal lii kon ñun ñoo war a xam sëñ biñ am ñu xam ne ñun amuñu dara sëñ Abdou Samad lañ am te moom la ñuy sagoo moom lañ am te ñun xam nañ ne tim képp koo xam ne taalibeem sëñ Abdou Samad Mbacke nga nat sa bopp bi ngay dugg sëñ bi soo nattaatee sa bopp xam nga ne am na lu sëriñ bi def ci yow war nañ cee sant bu baax ñu gën a jàppat sëñ bi leneen li ci desin muy liggéey bi ñu xam wax suñu mbokk taalibe yi liggéey bii nga xam ne ñoo ngi koy def ci biir kër sëriñ Abdou Samane Mbacke ñuy wax ne ku fi ñëw ndax boo xoolee gan ñi sax gan amu fi ndax ku jógee ñëw ci kër sëñ ba liggéey moo la fi andi ndax toog rek andi wu la fi liggéey la fi andi kon bu kenn dem toog ne man ka dañ ma war a andil ak gan laa wala nga dem toog jàpp ne ñay liggéey dañ la caa ëppale wala da la caa dal loolu ay nax sa bopp la nañ bàyyi kenn takk ay laxasaay ñëw ci liggéey bi organiser liggéey bi te xam ne ñun kat liggéey bi fi war du Ousmane Ndoye du Mbaye Seck mi taxaw ñëpp la war képp jàpp ne bu baaxee yow la baaxal nu mel yow yaa ko def kon daal loolu laay soññ suma mbokk taalib yi nga xam ne suñ ñëwee ne ñëpp jël seen loxo dugal ko ci liggéey bi ndax bu réussir sëñ bi bëgg kat ñun ñëpp ay bëgg waaw loolu moom euh, yaakaar naa Euh, am murit moom amul lu tax dafa war a set waxumaa ne ngay jël aw ñam di ko yët ak gan dafa war a set ba ñu ngi koy jox ñu man koo lekk kon yaakaar naa jëm naa sa waañ wala ab taalibaa rek taxul ngay lëfër lëfër yi def wa def sa bopp wàcc sa bopp comme nii ñu organisé jigéen ñi wax dëgg yàlla dañ leen ciy gën a encouragé waat rek ñu gën a defar bis bi ndax taaral bis bi jigéen ñi dañ cee bokk surtout wàllu déguisement yi euh, muy déguisement tim euh, dinaa ko dolli soññee ndax dañ ñëwoon déguisement bula lañ waxoon ñu wut ay tenue bula góor ñi déguisement yi bula comme dayru salaam moo demee kër sëñ Fallou tenue bula nga fay gis dayru salaam yëpp comme dayru salaam nag ci soqoo ko ma nga soqoo ko ci kër sëñ Fallou ba léegi ñu dayru yëpp dayru salaam la kon nañuy wut góor ñi tam di taaral di wut ay déguisement yoo xam ne déguisement yi bula la ñu mën a ànd comme ni ko jigéen ñi defee kon vraiment ñoom it wax dëgg yàlla jigéen ñi macha allah euh, li ci des it dinaa ci dolli tuuti rek muy ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ féete fii ci Touba sëriñ bi yàgg nañ cee soññi muy na soxna yi di ñëw kenn ku ne na nga wax na soxna mu bàyyi ñëw ci liggéeyu kër sëñ Abdou Samad rawatina ci wàllu baas bi ndax wàllu baas bi kër sëñ bi day wax ne bu ëpp lu muy xool waa mbuur yi rek la ciy gis loolu nag yaakaar naa ab soññi la ci ñun ñi nga xam ne suñu soxna yaa ngi ci biir nañuy bàyyi yitte te ñëw def li ñuy sëriñ bi bëgg ndax sëriñ bi kat li mu bëgg mooy suñu bëgg-bëgg ndax bu demee ba sëñ bi xool ne dañoo war a ci baas bi kon yaakaar naa te am na ab yëg-yëg te nag sëriñ bu xol xëy nga di ko liggéeyal ba war a xëy tàggoo ak moom xolam sedd guy mu war a jàkkaarloo mbokki taalibe yi yaakaar naa ñaan googu ko fànq fanq nga lu rëy a ci yow ndax mbégum sëñ bi moom bu sëñ bi bégee lépp lu mu ñaan rek sëriñ fallu yaakaar naa ci bisub sëñ Fallou bi ñun ñëpp dañ ci am yaakaar na dana am kon ñu ngi ci soññ mbokki taalibe yëpp jërëjëf di nuyu itam presse bi vraiment yéen seen taxawaay reewe na sëñ Mourou ndax at mu jot ngeen ñëw fii taxaw fi màggal gu mag sax da ngeen fi ñëw te ñun duñu fi ne a ah, loolu wax dëgg yàlla ak bëgg ak doonu taalibe ak bëgg a sa kër sëriñ wax dëgg yàlla dañu ci sant sant boo amul tàmbali waaye amul fu muy yem sant nañ leen bu baax jërëjëf. waaw waaw fii moom mooy suñu kër sëriñ bi nga xam ne sag màggal euh, daanaka man naa ne la bu kas gi jàllee ci leen tàmbaliwaat di ko waaj ba bis bi di egsiwaat ñu taxawaay ci taxawaay bu am solo nag ci waañ bi ci déguisement gis ñuy ak ci ñëw ci daayira bi ci kër sëriñ bi chaque àjjuma muy taxawaay boo xam ne taxawaay bu buñu bu ñu yitteel la boo xam ne si ñun ñëpp dañ cee jàpp mu jaral ku nekk si ñun ngay joxe say numéro ngir uh, am pëseef ak bëgg taxaw taxawaay bu rafet rek ci liggéeyu kër sëñ bi. waa mooy li ma la wax léegi loolu li ko gën a yombal mooy dañuy def àjjuma bu jot ñu fexe di dajee ci buntu kër sëñ bi di fi def ay ay ay daayira. ngir loolu dina tax suñu liggéey gën a mën a yomb ci bu bis bi di egsi duñu am jafe-jafe pour am ay déguisement yi ñuy toggee ci biir waañ bi ak déguisement yoo xam ne dañ koy fas yéene duggee ci biir baas bi ngir taarale ko bis bi dañuy def ay daje yoo xam ne loolu mooy waral loolu mën a yomb ci ñun waa ñu gën a paseefuwaar rek ndax lii wax dëgg yàlla lu neex la te ñi ngi lebal koo xam ne ku am fay la itam muy sëñ Fallou mi tax ñuy def bis yi jëmm la joo xam ne maanaam képp ku gore rek soo weetee man nga wax ne mas nga ko woo ci barab mu fekk si la fa kon ñu gën a yokk taxawaay bi rek ak pas-pas bi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko koy liggéeyal ndax waaju am fay kon kuy defal ko am faykat bul sonn bul tàyyi ci def googu nga xam ne moom nga koy defal ñu gën a pëseefuwaar rek di ñaan di ko fekke ay at yu bëree bari ba suñu borom may ñu ak wér itam ñu mën ciy taxaw taxawaay bu rafet ci at mu jot loolu rek laa leen di soññu te di leen di leen ñaan ñu taxawaay ci taxawaay boobu sama kàddu gu mujj mooy di soññewaat rek waaw ci liggéey bii nii ndax lii dafa neex dafa dafa rafet dafa sedd xolu murit bu nekk waaw lii rek sedd na xolu murit bu nekk kon nan gën a jaajuwaat gën a pëseefuwaat ci liggéeyal sëñ bi te it sëñ Abdou Samad mi nga xam ne moom lañ mooy suñu bunt ci waa kër sëñ Fallou jëmm la joo xam ne ju neex a àndal la ci oyof ci am yitte ci amuk dal ci toppatoo mboolem koo xam ne siine rek xam na la sëñ Abdou du fakk kenn bu la xasee ba gis benn yoon rek saa boo taxawee boo ko boo ko nuyoo rek dina la fay fu yitte yi jógee itam lu mu xat-xat day dagg ay yitteem di ñu fa fekk kon jëmm la joo xam ne ku ànd ak moom war nga mën a taxawaat taxawaay bu rafet gën a pëseefu gën a jaajuwaat ndax ku ànd ak koo xam ne kat ku la yëg la ci muy sa bunt ci Serigne Touba war ngaa mën a amaat taxawaay bu rafet kon nañ soo ñëwaat bu baax te gën a taxawaat te gën koo jàpp ndax ku jar a jàpp la mooy sama kàddu yu mujj ñi ñaan yàlla nañ ko fekkewaat ay at yu bëree bari ci daraje Serigne Fallou Mbacké